Mais les anciens maires, vous avez l'obligation d'accompagner. Vous avez l'obligation de soutenir. dund ngeen dem gis ngeen la fa am tey ñun nag bi Casamance Casamance moo war dundal Sénégal man amu ci sikki man amu ci sikki Casamance moo war si nga vers le nord ou vers le centre fa ngay dem ko fa à l'occasion d'un conseil interministériel ko fa ci ay visites évaluer yi nañu la nga xam ni la Casamance soxla jàpp naa ni ci buñ fa defoon mën naa nekk réew mi Kazamas. na ko Casamance jar Casamance buñ ko Casamance du lu Casamance Sénégal ndax am avantage comparatif ba pare am ngeen ndox dégg je parle de la région naturelle de Casamance bu ngeen ko buñ ko buñ fa liggéeyoon rapidement fii ak juróomi at ñu bari dinañ jóge Fuuta bi ma cosaanu donte ñooñu am nañu ay avantage dem Casamance liggéeyi parce que la fay nekk lu teew la lu sotti la cet engagement là tient toujours am naa yaakaar ci projet bi nga xam ne ñu ngi koy wax te gisaguñ ko xëy na seen yéene dina ëpp la nga xam ne wax nañ ko def ko ci Casamance waaye li ma wax moom xam naa ni li ñuy wax cadrage macro budgétaire attan na kon waxuma ko ndax sama coobare waxuma ko nit parce que dama bëggoon li neex waa Casamance dama ko waxoon parce que jàpp naa ni moom moo jaar réew mi la nga xam ne am nañ ko